nga xool ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf wallaay waaw waaw ah tafsir tey sama xol seet ñoo ko bokk mbokk yi mi ngi mm. noonu ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yunt bi tey nag dañoo am gan tafsir tafsir maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay baa yaa ngi am jàmm maa ngi sant bu wér. alhamdulilah waaw. tafsir bi nag boo leen gisee wax dëgg yàlla waaraakat bu mag la nekk fee nga xamante ni nii ca 2STV yi wax dëgg yàlla di bëggal jàmm yàlla yi waaye tafsir. Mhm. actuellement dafa am beneen ñàngat goo xamante ni dana ko am. njàngat bi ñu am mooy du ñu gis ci wér koor conférence yeeg dajaloo yeeg yu bëri da am waaye ren ñu gis ni wax dëgg yàlla loolu duy tuxu noo jàngatee loolu. waa dogalu yàlla bu ñëwee dañ koy nangu. moom laa doon waxtaan ak sama xarit léegi sama seex di Maamina Aydara ne ko nëgë ni daaw baare nañu. ba baare ngeen liste bi. nëgë ni daaw baare nañu. da ngay ñëw na tam si leen soxla ñu la ah xanaa ñu xaj-xajal la ci waaye baare nañu. baare ngeen. ndax ñun yàlla baat nañu jox. dëgg bu baat bi deewee doo bëgg jël alalu jàmbur mukk dem ci conférence am. Mhm. di liyaar. di liyaar. Eh, yan ci moo taxit heure bi daan na fekk ñu baare. ngeen baare. weeru xéewal la mm-hmm. weer la boo xam ne lañ ci doon jot ci koom-koom mm-hmm. ak lañ ci doon teral ay doomu aadama mm-hmm. ak lañ ci doon def social lañ ci doon def social ñun nag ndax du ñëpp lañ doon laaj xaalis dëgg la da ñëw ñu ne la waaw nii lañ doxalee nii lañuy ñuy doxalee nii la doxalee nii lay demee ñun nit mënuñoo fay leen mënu ay soppe ñooy jóge fu ne kenn rek mën na laa defal loo xam ne bu mbooloo dajaloon jox la ko kenn defal la ko. kenn defal la ko. ren nag loolu yëpp nag France ni xëddeem dafa nar a yàqu. Mhm. dëgg la lépp ren wax dëgg yàlla daal la yàqu. waaye mbokk yi di leen fàttali ne bii kat bu ko ne jàkk ngeen xam ni wax dëgg yàlla xaala laaw xaala rasul gi ci moom waaye tafsir yaakaar nga ni est-ce que am ngeen beneen méthode boo xamante ne nii boo la ko tegee. yàlla mën naa def seen diggante ñi nga xamante ni ñii ñooy si i soppe waaw ah dina am nag dina am dina am wax dëgg yàlla dajaloo ba dootul am waaye dina am leen lu ñu indi garaam lan ci indi garaam bi ndeysaan Instagram waaw waaw waaw yaa man maa ngi juum indi eh, indi garaam ba eh, na nundu mhm. téléphone bi jox ma jottali ma sama téléphone bi may dugg laa ko teg sa bureau bi la pour mag ñi nga xam ne xamuñu ko mhm. boo fekkee ne seen doom mën nañ leen abal téléphone bi. téléphone da ngay dugg Instagram. Instagram. waaw boo fa duggee nga bind ma bind maa mel ay dara nga am ma live. maanaam direct day mel ne dama jàkkaarloog yow. yaa ilaaha waaw la système boobu ngeen bëgg a ñu bëgg a def parce que comme que dañuy daje mbool dañuy tere daje mbooloo. Mhm. te duñu mën a dem fekki mbooloo mbooloo duñu ñoo mën a fekki tele ba ñu nekk nag ñoom mënuñoo bàyyi nit ñoo fekk ko à live kon ñun ñooy live ak téléphone yi direct te dara dox suñu diggante ñoom d'accord mais Tafsir est-ce que yaakaar nga ni wax dëgg yàlla live bi ngay am ci téléphone bi at live bi nga doon am at mbooloo mi est-ce que même même yëg-yëg nga yam ku nekk la lay yëngal rek ku nekk ak la lay yëngal ku nekk la lay yëngal xam nga seen patron ma ngay yëngal. ma ngay ma ngay bu jotee ma ngay yëngu. ñun tamit bu heure bu jotee ñu yëngu yëngal. xam nga fan la nekk. fan la nekk ci xol ngay laal. Oh, maamin bu firee ma daadee toj ñu aayi. waykat ba yëkkati ma firi ñu xuus. <laughs> kay seetaan bu téye téléphone mën na koo dugal ci cinte du ko yëg. moo tax jël leen téléphone yi taf ko ci mairie. <laughs> antan jël leen téléphone yi taf ko ci mairie. surtout ku koy téye bul togg. ndax boo koy dugal ci cin du ko soor doo ko tey ren dañu nar a indi beneen feem bu bees feem ñu yees live facebook instagram way dëgg lii waaye tafsir waaye wax dëgg yàlla tafsir indi nañu wax dëgg yàlla ñàngat bu bees képp koo xamante ni da ngaa yor sa téléphone gaawal gaaw installé li nga xamante ni mooy Instagram. waaw léegi nag live Instagram lay def euh, tafsir loolu nan lay demee. waaw bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne. Mhm. xam nga ñun bu ñu musaan taxaw di wax. waaw dafay am daanu. dëgg loxo mhm. ñuqi joxe te diggante bi doo mën a ñuux fa nga nekk ñuq sànni waaye am na xarala yoo xam ne boo ñuuxee dugal sa kalpe bii mhm. yónnee ko ñu jot ko dëgg yooyu yëpp day delluwaat ci rek ca la mu nekkoon social bilaay loolu yëpp day nekkoon waaw amul amul nag ay bëggoon naa koo def waaye xawma nan laay def boo jox leen ko amul loolu bu dee yére la garaam boobu moom mën ngaa téye ba jàkkaarloog ñun ba jàkkaarloog bu dee koppar la moom sànni ko ci téléphone ba danañ ko jot incha allah rabbi te boobaa boobaa boobaa day day da ngay doon bi waaw xam yëf lay demee dañ la koy wan parce que dañuy njëkk def test ah da ngay da xam nga ñun suñu fans club yi la ñu ëpp ña nga ca géejawaay waaw bi laa wax dëgg jàpp padduwaay ñëw wakaam ngor yoof fa la yi di daanoo leer mhm. su ko defee buñ ne tëll taxaw ci koor nañuy wax ñu wax leneen ci koor. ci koor rek ngeen di wax. waaw ndeysaan. nu nombre de vies di gën a bëree nag. Mhm. koppar la buy tuur ñëw ci ñun. waaye bu jeexee ba at bi weer bi koor bi jeex ñu daal di koy jël nag def ko social. def ko social. waaw kon daal yéen wax dëgg yàlla ci nombre de vies yi. waaw. yi nga xamante ni ñoo leen di seetaan wax dëgg yàlla ci loolu ngeen bëgg liggéey kay jërëjëf buñ ko jëlee nag dañ koy jox ko suñu ay soppe jox ko seeni soppe yoo xam ne ñu mel ne ay abu bilaal ak yow mm-hmm. séddale leen ko ngeen téyeku ay million la nag jërëjëf waaw jërëjëf léegi nag ñu bëggoon wax dëgg yàlla nga may nu dara loo xamante ni nii askan wi dañ koy mën a comprendre ba boo leen ci tolloo ah askan wi mën ci gis seen bopp maa ngi nii en direct yaa ngi may seen bilaay maa ngi lay seen live Instagram live Instagram la dëgg lii Instagram waaw Instagram Instagram. waaw kay Facebook. ma oh, ne ko Facebook. taxaw bokkul ak Facebook. waaw maa ngi Facebook nii. ci yàlla suñu taxaw mel ne kuy fees. Mhm, maa ngi nii taxaw. waaw kay bug baa ngoog. maa ngi nii taxaw yëkkati. Bilal Meda Abdourahman Bilal Meda. ngi nii di jàkkaarloog yéen ci Facebook. Bilal Meda Abdourahman Bilal Meda. ak WhatsApp. Bilal Meda. abdourahman bilal mi daa ku ci daanu leer loo yor sa poos sànni mu ñëw danañ ko jot bilal mi daa bilal mi daa am na xarala yoo xam ne boo fa jaaree danañ ko jot bindal sama tur bilal mi daa abdourahman bilal dama ne ee ee ee weeru koor nañu nekk uteg weeru kooru ren bilal mi daa abdourahman bilal mi daa partagé leen connexion yi vu ah. yaa ngi yokk ca kaw gis nga ma ngay yéeg bilal mi daa Abdourahman bilal mi daa. ba may tàmbali 4 vues laa am maa ngi actuellement ci 4495 vues. eh waay ndaw bilal mi daa Abdourahman bilal mi daa. xaalis baa ngay bëri waaye gisaguñ ko balaa ñu koy fayee ko émission ba jeex fii ak weer. bilal mi Abdourahman bilal mi weeru kooru ren nar naa ut ak weeru koor yi amoon daaw bilal mi daa Abdourahman bilal mi daa xoolal sa soppi bi nee na kii way na yëkkati waay loola koy daaneloo bilal mi daa Abdourahman bilal na bëgg na laa jox million waaye moom ba tey daanugul de bilal mi daa Abdourahman bilal mi daa nee na boo gënee aj mu aj poosam jox na la cinq cent mille bilal mi Abdourahman bilal mi daa. boo yemee ca daa ba bul ko wàcc aj ko ca kaw ba mu ne la wàccal. bilal mi bilal mi daa bilal mi daa. na waroon Abdourahman ca daa ba nga waroon téye su ko defee ñaar fukki junni ñëw. bilal mi daa na xam ne parce que koy faj ak lu tàng moo taxit daa ba wàcce ko ci suuf. bilal mi Abdourahman bilal mi daa dama ne ren koor gi dana la metti de ndax lu tax muy metti mooy du doon loo xam ne laaf ak laaf lay doon bilal mi daa Abdourahmane Bilal Média actuellement maa ngi million 4 millions 484 vues laa am Bilal Média Abdourahmane Bilal Média buñ ko xaymaa ca xaalis war naa mën a jot ci ay ñaari junni bëriwul Bilal Média Abdourahmane Bilal Média nee na waykat bi na gën a yëkkati baatam ca kaw mu dégg ko Bilal Média Abdourahmane Bilal Média nee na moom ci boppam li ko yee du dara lu dul say yuuxu Bilal Média Abdourahman bilal mi daa. nee ci boppam aj ko ca kaw ca kaw a kaw. bilal mi bilal mi daa Abdourahman bilal mi daa. nee na ba say rongañ di tuuru du gëm ne lii la. bilal mi daa bilal mi daa déggoo bilal mi du ko bàyyi nee na ñaari million ngay ñëw waaye gisagul kum ko yónnee. bilal mi Bilal Binta maa ngi dee Bilal Binta. déedéet déedéet tey sa soppe la nee na lu koy gën a neex mooy boo ajee say ñaari loxo jàkkaarloog moom nee na day mel lu koy yëg. Bilal Binta Bilal Binta maa ngi dee Bilal Binta. déedéet déedéet nee na nga baaral ko moo koy neex. Bilal Binta. wooy bilal mi maa ngi dee bilal mi dee nee na nga delluwaat ndànk mel na fi koo jóge woon mel na ko foo jóge woon nee na nga arrière tuuti parce que yaa ngi ko yëngal bilal mi dee wayaayooy bilal mi dee dama ne Instagram WhatsApp ñu ngi koy yëngal ñu ngi ci 4 millions 495 vues xaalis bu bëriwul bilal mi daa bilal mi daa maa ngi dee bilal mi daa deewoo de yaa ngi dundal xol yi ndax yaa ngi wax ci lu jar a wax bilal mi daa bilal mi daa Abdourahman bilal mi kooru ren ku sol grand bu bu ànd ak mbuus buñ ko mere ndax ñëpp a a rafle bilal mi daa Abdourahman aratel lii tailleur ñëwul tiisi ibbiwul marsa selem jaayul kastoor jaayul lu waay am sol Bilal mi daa Abdourahmane arrêté lii. buñ ko arrêté xaalis bi du ñëw parce que live en direct la. Bilal mi daa maa ngi dee. nee na nag boo yëkkatee ba ca mu wóor na ne yëkkate nga ca kaw moom dina génn fi mu nekk jàkkaarloo yow di la wan xaalis bi. Bilal mi daa Bilal mi daa Abdourahmane maa ngi dee. déedéet déet. feet yaa ngi dundal xol yi na moom bég na yëkkati na doomam bu jigéen buñ naan princesse may la ko bilal meda bilal meda abdourahman maa ngi dee na balaa muy gëm na yaa ngi dee nga wan ko yaa ngi dee bilal meda bilal meda abdourahman amatuma voix ana voix ba nee na nga wax ko ci kaw mu wax ko ci suuf jox la ko xaalis baa ngay ñëw bilal meda abdourahman maa ngi dee eh ren korité nag ren dana neex ndax ginaar dana noppaliku xar noppaliku lu waaye am na ko rey eh ba ca soom bi dagan na ci weer bi bilal mi daa abdourahman kañ lay jeex marché HLM ibul kastor ibul légume amul ginaar jooyul xar mbeewul ndax ren ku teg korité loo am na ko seeñoo bilal mi daa abdourahman kañ lay jeex du jeex léegi ndax live la am nañu huit million huit cent quatre-vingt-quatre vues bilal mi daa buy continuer man may dee bu ñu deewee ma remplacer la keneen koo xam ne mën na koo yëkkati ay ca ca kaw bilal mi daa bilal mi daa abdourahman baa ngi

Abdourahman maa ngi dee. yëkkati ko ca kaw mu daal di koy gëm. mënatul ko ca kaw mu gëm ko. Abdourahman ana xaalis bi mbaa ñëw na. Abdourahman maa ngi dee. ndekete kii saay saay la daf ñuy nax da doon tappale. Abdourahman lii li ci génn maa ngi dee. <laughs> proposition au nombre de verbes et aussi faire la différence entre proposition et préposition je pense inspecteur il y a aussi par rapport à euh, aux prépositions une certaine facilité à retenir à 200 pour j'ai oublié le ils reste sont, ils sont nombreux à, à de, chez en pour etc mais les maîtres euh, chevronnés ont toujours euh, la formule magique euh, voilà. pour fixer comme les noms terminés par ou mm. bijou kayishu jujupu qui prennent x Et tous les autres prennent S. Et maintenant, c'est facile de faire Bijou Caïchou, Ibou Genou, Joujoupou. <laughs> Merci beaucoup, cher Petit. Vous êtes bien servi. En tout cas, n'oubliez pas l'exercice avec euh, inspecteur Damsek, exercice que vous pouvez retrouver sur la page igfm.sn de la télévision Futur Média ou bien sur la page Facebook euh, de votre émission.